ñaari waajur lu bare bari di nuyu di ziar borom kër gi El Hadji Sidi Lamine Niass Niass di ko ñaanal mu yàgg fi loolu rek sàkk ci moom ñaan ndaxte da di doomi soxna xut bu samaan en même temps waliwu la kon ñaanam da daal am solo lool nuyu leen yéen tamit euh, yéen ñi nga xamante di jamono ji yéen taal seen poste de télévision li ñu bàyyi xel ci 14 Sénégal bi ak leen seen magazine bi ngeen taamu tànn ko seen bopp njogonal dooratina destination régresse la bande FM mbaa doomu saa Ndiogou Mbengue kon ngi laan caare kon mbokk yi loolu moom moo doon euh, nuyoo bi euh, xam ngeen ni te duma ma ci wéet ndaxte euh, comme chaque mardi comme chaque mardi ci seen magazine ngeen di am li nga xamante ni rek ni moom moo di focus ñu ci ànd ak rek suñu frère suñu xarita Mr bi boy bi boy nee na am in the building we never you voilà B-boy naka mu <laughs> ça va <laughs> yaa ngi si jàmm maa ngi sant bu baax. déwénati yàlla na yàlla na sant yàgg déwénati leen baal leen ñu àq. baal naa la baal ma. nañu yàlla boole jégal. allahumma amiin. waaw di jégalu tous les di leen mhm. nuyu tamit ah. mhm, di leen siyaare di leen ndokkeel ci koor gi. yombul mais waaw. waaw maintien rek waaw waaw. sinon tey euh, bi booy euh, ci biir euh, focus. waaw focus tey narati ngaa indeeti lu riche. xam nga yow moom tout monde s'attend <laughs> bu dara xew rek lu focus bi tey fan la nar Euh, incha allah dañuy def euh, euh, loo xamante ne nii doon naa ko préparé ak ay hésitation comme ni mu la ko waxee woon. Uh-huh. parce que histoire la comme boo duggee États-Unis mm-hmm. ci milieu hip hop bi ah, États-Unis la ñuy dem. Ah, yam ci benn artiste boo xamante ni nii légende la ci hip hop muy Tupac Shakur. Mm-hmm. mais pas ci Tupac en personne mm-hmm. mais. entourage Tupac parce que euh, bi mu euh, depuis que ñu rey ko en 96 euh, depuis booyam yi am na ñaar ñu ci reyaat am ñenn ñu commencé dem jeel mais il s'est trouvé que mhm. ñenn ñi dañoo mujjee trouver yoonu diine quoi. waaw parce que bi dafa xaw a. et puis gars c'est des gangsters au sens bu yenn ñi ci di koy utiliser. mais gangster au vrai sens du terme quoi. Mhm. gangster dëggantaan xam nga. donc dund ko ba am bés egg ci benn jamono dajanteeg euh, xëy na ndimbalu yàlla ak yërmanu yàlla ñu dugg ci diine lislaam te ki ko njëkk a def ci moom la ñuy def benn focus bu yaatu euh, tout d'abord pour wane gars yi seen niveau de euh, gangster fi ñu ci tolloon ak metteeg yooyu gars yi di ñoddi dañuy seetaan seen première vidéo avec ta permission ah mooy Hit uh-huh. mu nekk woy boo xam ni dañ ci doon dal ci beneen gang mu mhm. tuddoon Bad Boy nga xam ne ni ki ko jiite woon mooy euh, Biggie Small mhm. Puff Daddy moo nekkoon moo nekkoon mooy boobaa ah, P moo nekkoon euh, borom labelu Bad Boy Records mhm. léegi euh, Biggie Small moom mu jiite beneen gang bu tudd Junior Mafia mais comme que Biggie Small dafa signé woon Bad Boy Records ñu nekk benn gang ñoom ñëpp léegi kee moom Defro la nekkoon ci beneen label bu ñuy wax Defro côté mhm. West Coast bi. Mhm. moom tamit ah, mu am ay gang ñoo xamante ni ñu ngi leen tuddee woon de outlaws. Mhm. outlaws pourquoi parce que orla la loi selon les lois américaines. parce que ñoom ñëpp ku ci nekk tur yi ñu tuddee seen bopp ci biir groupe bi dañuy xool les ennemis des États-Unis ñu ci mel ni ay ay Saddam Hussein. kii tudd Hussein Faydo. Bolien ah, kii tudd Castro mooy Fidel Castro ñoom ñëpp seen tur yi dañu tuddee seen bopp ay turu ennemi gouvernement Amérique du coup Euh, ci esprit boobu lañu tuddee outlaw su pak doon prôné benn idée wu thug life comme yu demee noonu THUG euh. xam nga di mhm. wane ni haine bi ngeen jox nit yi mhm. mooy tasaare fépp euh, moo thug life foofu la jógee sax exactly léegi dañuy dem région uh-huh. avec la complicité ñu dem seetaan première vidéo hidden bi suñu doom baay mooy ma nga faax Cheikh Tidiane Diop kon li vidéo bi ngay laajte waaw mooy hidamab bi ah ñu ñu ñu ñu jox ko gaay hidamab mooy dal seen kaw cest dama ko play pour nit yi am benn aperçu par rapport ak gars yi seen gangster style bi quoi maanaam ni ñu ni mu méttee quoi d'accord voilà kon Aïcha ñu dem suivre vidéo boobu daal di dellu siwaat ci plateau Ndiogou nag métti na de bii ah? eh, léegi euh, mi ngi nii hit em la benn bif la bu amoon parce que on des fois on parle de clash mais des fois tamit ñu jël loo xam te ne ni bif la ñu tuddee ko clash quoi xam na parce que figure de style yi ñuy wax nii ci pop bi. Euh, euh, li ñuy servir mooy par exemple. bu ñu waree euh, lalla bu ñu bokkee milieu di liggéey te gisuma ni li ngay def yaa ngi koy teg ci yoon. Mhm. dinaa utiliser ay figure de style wax la li ma lay wax te xam amaana sax du du du du non di nga di nga xam ne yoo laay waxal. Mhm. mais day nice day tegu ci aar quoi xam nga li ma la wax xam nga. tudd sa tur saaga nii yooyu ay recte straight la ko gars yi di woowee loolu moom biif lay nekk quoi xam nga donc biif la bu nekk digganteem ak euh, mooy comme li mu la expliqué sànq mhm. wax na ci wax yu garaaw a garaaw booy tamit ku ci nekk wax na wax bu garaaw a garaaw xam nga fi mu waxee pour wax la ni rek jamono bi nii ñoom mooy nit kuy dund te amuloo diine bu la tënk amuloo cosaan wala aada bu la tënk da ngay def comme nu mu la neexee rek léegi Euh, mun nañ ñëw ci élément bi nga xam ni mhm. moom da ci expliquer gars yi dina am euh, subta dina am euh, sous-titrage mhm. pour gars yi mën a lire français bi comprendre un peu mais bu ñu ñëwee yow tamit dinañ ci dinañ ci yaatalaat bu soobee yàlla mais balaa boobu am nga mhm. tamit invité bi Sol ji <laughs> dafa waroon nag <laughs> Exil Sol dafa <laughs> waroon invité mujjee nañ ñu invité ko quoi moom voilà l'invité invité l'invité invité Souldi. oui. waaw naka mu maa ngi fi rek tout se passe très bien alhamdulilah. waaw. Ah. waaw Aïda donc. Euh, tey nag dama woon invité. Mhm. dans Hip Hop pour parler de. parce que juste après ah, mhm. après B-boy yow yaa waroon ñëw pour euh, parler de beatboxing. Mhm. beatbox discipline la boo xamante ne peut-être nit ñi dinañ gis ay artistes di ko def mais souvent tour bi sax duñu ko xam. donc c'est une des disciplines les moins connues euh, du du mouvement. benn kàngam boo xamante ne euh, dafa bokk ci pionnier mouvement hip hop Sénégal bi mais en même temps bokk ci ñoo xamante ne dañuy faral di ko def sur seen fa muy euh, dëggati mais l'on propose je dispose comme tu l'as dit tout à l'heure hors donc dafa xaw bon il n'est pas voilà exactement ce qui fait que peut-être il sera là la semaine prochaine mais su ñëwul de toute façon aussi dina am beneen invité buy ñëw pour euh, parler d'autres choses donc ce qui fait que vraiment duñ ci mën a euh, développer parce que vraiment voilà je préfère que moom mu ñëw ñu koy laaj exactement exactement mais quand même du yàqu temps bi parce que B-Boy est là il aura l'opportunité de mieux développer n'est-ce pas donc euh, lu mu prévoir euh, def tey donc c'était juste pour ça voilà jaajëfal bu baax. c'est moi qui vous remercie. merci beaucoup Abba. Euh, waaw xam na juste rek pour waxaat à tous les téléspectateurs di leen jégaluwaat ci euh, kii bi parce que grand dëgg yi. Mm-hmm. Euh, ku respecté la. Mm-hmm. grand boobu. Mm-hmm. kooku quand on me taxe des fois de américain. nañ ko wax nañ nañ ne ko moom mooy responsable principal bi quoi. lu leer laa lay wax kooku texam texam laa njëkk di jéem a lijjanti lan la fay wax je me rappelle jamono bi muy wax ala di african man dem bay da ñu ne ma yaakaar ni wolof lay wax kan mandeng laa foogoon lay wax nekkate boobu anglais lay wax te waxul anglais sax bu académique mais anglais patois jamaïcain lay wax all of the African men dem better wake up and unify they, they better wake up dañu war da il ferait mieux de se réveiller et de s'unir mm-hmm. all the African men non loolu loolu loolu ce serait un grand ah, plaisir pour ah, man parce que dëgg dëgg mooy loolu mais euh, juste rek voilà ñu dem ci euh, euh, régie bi mm-hmm. seetaan la vidéo interview la lii nag élément bi benn it interview télévision la benn TV bu nekk Chicago ah. waaw télé bi mi ngi tudd xam nga diine diine moom booy xool presque. xëy na ci gaaw de diin. mooy diine ci arab léegi ñoom dañ ko tuddee de diin show maanaam comme ni ma amoon ci rajo bi ndaari show. Mhm. xam léegi de diin show maanaam show diine ji quoi. Mhm. dañ fay def. on parle que de la religion musulmane wala ci la ñuy débattre léegi moom il a été invité mu e-, dina expliqué euh, moom li mu doon dund mhm. ak nan la rencontré ku ko mën a jàllale ci yoon boobu ak nan la demee fréquenté gars yi ak lan la lan la sentir quoi parce que dinañ ci gën a yaatal nañ ko nañ ko nañ xool élément ba pare d'accord kon à toi Aline Ndiaye ñu dem seetaani élément boobu dellu si waat comme ni ko euh, bi booy waxee woon rek euh, ca Dean Show. Mhm. mu amoon yenn leeral yoo xamante ni it indi na ko ci. Euh, mu mhm. ko doon wax anglais. Mhm. waaye ci suuf bàyyi cran bi doon nañ ko traduire en français. man sax mhm. comprendre mais am na yu ma xaw a jot a euh, mhm. comprendre mais bii booy moom mhm. il la là pour ça allez bii booy je te <laughs> léegi juste pour wax rappeler nit yi rek nii euh, affaire bi moom mi ngi ci internet bi ah gars yi nañ ko dem seetaan waaw parce que nit yi dañoo soxla yu mel nii quoi xam nga fi ma waxee et du du benn élément bi kese trois éléments la mais xam nga duñ mën a teg lépp lépp xam nga saa saa yëpp waaw loolu day xaw a métti sax quoi xam nga ce temps bi dinañu ko may xam nga boo dégluwee commencement bi waa ji daf koy laaj. Mhm. pour mu wax ko ci seen passé. Mhm. maanaam wax ma tuut ci sa waaw ci sa li nga jàll sa ginnaaw. Mhm. gisoo tubaab bi ni mu ko cëkkalee xanaa xaw ma ndax. comme Ibadan xam nga su nit ñoom bañ ko daan def. voilà xam nga aha xam nga ak teg ci seen i dàll yu ngande yooyu tamit nu mu sax dàll yi. wala dàllu sport rek. voilà xam nga léegi euh, mu ngi euh, expliquer Euh, woy baak ñoom ci jamono yu ginnaaw mm-hmm. nuñ doon dundee yu demee noonu mm-hmm. expliquer ni euh, moom il était euh, parmi les membres les outlaws moom moo gënoon a jege Tupac donte bokk ñu woon dara ñoom ñaar parce que Pac amoon na ki tuddee woon boppam Castro mooy Fidel Castro waaw Castro ki tuddee woon boppam Castro cousin wu Pac la mm-hmm. bon yaa Kadhafi Kadhaf comme Kadhafi waaw Kadhafi moom tamit mu ngi ñu ngi mois am na sànq damaa juum ne la deux jours mais deux mois après euh, après bi ñu reyee Pape xam nga voilà léegi moom nee na yàggul dara maamam jigéen ku ko yar mhm. gaañu Pape deux semaines avant ñu koy rey mu ne ci la am kër mali bu tabax ko dëkk fa di dawal Rolls Royce mu ne nag bu njëkk ba Pape da doon wax ne rek man pare naa pour dee lu mu wax rek ci waxu dee rek la Pac doon wax. Mhm. mais bi mu tabaxee kër googu affaire yooyu nee ñu waxtaan ci seen biir. Mhm. Pac daf ne ko mais euh, euh, ñun da man daal comme que am naa lii nii lépp bëggatuma dee quoi. Ah. nee na mu ne deux mois deux deux deux deux semaines plus tard ñu rey ko. léegi ci la ci la ci la ci la ci la c'est c'est à ce moment qu'il s'est rendu compte que mhm. nit kon. ndekete yoruloo contrôle sa dund mus naa ko wax benn femme en Gambie benn anglaise la mhm. yaayam euh, euh, euh, mooy mooy mooy mooy mooy anglaise mhm. papam nekk jamaïcain xam nga mhm. mais moom Angleterre la juddoo yooyu noonu ñu ñëw di waxtaan mu ne moom religion diine mooy love ñu ne parce que diine boo dem lu baax lañ la fay jéem a jàngal ma ne ko boo duggee sa yaram sa kër médecin mun na ko téye ak pince sa réunion médecin lépp luy organe ci sa yaram mhm. médecin mun na ko téye ak pinsam ba mu des ruuxu mhm. ma ne ko te ruuxu boobu noonu mhm. yow nit faatu na ñu xool yaramam gisuñu dara benn pièce bu ci manqué. ruux bi rek la ñuy rocc. ma ne ko ruuxu boobu noonu ki koy contrôler mu neex la. da kaa war a bàyyi xel mu naqareel da nga kaa war a bàyyi xel. xam nga su ma waxee baax léegi moom it ci lii la ni. Mm-hmm. Euh, c' est euh, à ce moment qu' il s' est rendu compte ni. Mm-hmm. ndekete mm-hmm. Euh, ñun am na. lu lu ñu wër quoi. Mhm. te am na lu nekk au delà de mhm. dee. de dee faatu boobu noonu. Mhm. ci la commencé di poser la question à savoir. après nit bu génnee. nee na nag ci jamono yooyu noonu ba commencé na. comme ni waaw waaw di ci poser question dem na tamit ci yeneen éléments yi su bëri yoo xamante ni da ci expliquer mu ne. Euh, bi muy. nekk booy. moom ba tey Napoléon. waaw mhm. bi muy nekk booy. parce que mhm. moom moo gënoon a jege Pac. Mhm. moo gënoon a metti ci booy yi moo tax. parce que Pac moom dafa mus a tar. xam nga mais mu ne moom du muy nekk booy li mu noon rêvé ci life am li mu doon rêvé ci àddunaam mooy jàppoon na ni li ñuy woowee the American dream. le rêve américain. boo amee. kër oto xale yi jigéen ñi nga am ñoom loolu lañ tënk ci money in the things ngeen de things money mooy xaalis bi mhm. things yi things mooy les choses ah, kër ci la bokk ah, jigéen ci la bokk sàngara drogue yooyu noonu yëpp ci things yi lañ ko boole est-ce que xam nga fi ma mm-hmm. mu ne bi muy nekk bi muy gën a nekk booy jàppoon na ni doon dund ci rêve américain boobu jàpp na loolu mooy réussite ci àdduna mm-hmm. mais bi mu diggante am entre vingt trois vingt quatre ba vingt cinq ans mm-hmm. boobu moom am na ñetti kër yu moomal boppam ay kër yu bees tax yoo xam ne moom moo ko moomal boppam am diggante vingt trois ans ba vingt cinq ans ba vingt cinq ans xam nga wax du mag trop mhm. mu am ci ñetti kër yu moomal boppam mhm. am ci ay oto mhm. jigéen moom mooy bañ drop moom mooy bañ mais nee na bu nekkee gaawa mi dañuy bëggee def seen lépp mais bu wéetee ñibbi moom kese day sentir ne am na benn vide bu nekk ci moom nee na loolu di ko dal di ko dal di ko dal mais xamul lan la. Mm-hmm. mu ne te moom ci diine la juddu ah. Mm-hmm. bien que nag seen waa kër nee na ñoom doonuñu woon ay pratiquants. parce que maamam non non non si ah. diine christianisme la ah, juddoo mais nee na maamam te loolu bëri na États-Unis ah mm-hmm. milieu noir yi ñoo gën a respecté diine ji un ah. mais milieu noir yi tamit mère yu màgget yi wala paa yu yi ñoo gën a respecté dem église quoi xam nga fi ma waxee nee na nag maamam da boppam pour gars yi dem église mais ñoom faalawuñ loon wool loolu xam dem na daal vide am na benn daal lu vide daal lu nekk ci moom loo xamante ni nii li ko war a fatt moom xamu ko sax benn jour lay xeex ak benn frère am ñuy jàppante benn waay ñëw àtte si leen mhm. benn waa ji leen àtte si nag musulman la mhm. àtte bu mu leen àtte avec la manière xam nga li ñuy wax euh, piété bu nekkee ci doomu aadama boo mhm. sellee sooy wax ak nit sagesse bi affaire noonu yëpp dégagé wu xam naa moom nag mu impressionné wu ci waa ji parce que ci feew bu may tàggatoo nee naa la dinaa tàggatoo ak vidéo Tupac ay meedace hmm. vidéo bu muy titré ay meedace mooy merelu ma la merelu ma la merewu ma la merelu ma la waaw mu ngi waaw mu ngi mel ni ñoom comme c'est des gangsters rek yow ñoo bokkoon clique yow ci gangster yi nga bokk nga jékki-jékki bàyyi xam nga généralement dañ naan defeyaa nga mais Pac def son bi mm-hmm. jël exemple koo xam ne dafa nekkoon ci gangster lifestyle après mu bàyyi ko mhm. mu tu bind track tuddee ko meraluma la mais ci biir wóoyu bi da ngay dégg muy ne maanaam jàppaluma la dara dara mhm. mu ngi wax ak euh, waa ji ci biir mhm. naan ko cause you a Muslim now no more dope game mu ne parce que léegi musulman nga moo tax doo jaayati doo jëngatootu ci affaire drogue ngay xam ni ñoom étant sax ci gangster lifestyle bi ñoom xam nañ ni diine mis l'islam moom boo si nekkee daf lay xala jubal quoi boo ko bëggee toog xam nga fi ma waxee mm-hmm. jërëjëf Ndeye Coumba Diop sama bu baay mi nga xamante ni it euh, benn moom ndeysaan amatul yaay Euh, man ajaratu soxna mbay mooy sama yaay maa ngi koy ziar bu baax a baax yaay boyaat njaboot gi yëpp di ko ñaanal suñu borom bi rek gën a ñoddi ay fanam kon dinañ àndaat ak yow ci kanam tuuti euh, ci euh, xibaar yi ci ni mu gën a yaatoo rek ci kàllamay Kocc Barma waaye ñu ngi jaajëfal timit bu baax a baax rek bi booy mi fi jógee ci focus di la bàyyi xel ci focus rawatina timit ci weeru koor gi temps indi na tey ji loo xamante ni lu am solo la loo xamant ni it mën nañ cee jàngee ni dina jëwoon moo fi nekk ba tey yàlla jëwoon ci ba tey te it euh, dëgg rek moom mooy njëkk waaye tamit euh, moom mooy euh, mujj bu ko defee ci noonu la ñuy xuusee daal di ñëw suñu dernière partie magazine njogonal la ci dans la cour de l'école cette fois-ci ñu ci ànd ak Pape Ousmane xaritu xale yi ak Pape Ousmane dañuy jàng dañuy fo dañuy ree waaye nag tey dans la cour de l'école nara ci leneen loo xamante ni lu spécial la ci biir weeru koor bi xanaa ma tourné rek ne ko mon frère namoon naa la bu baax a baax a baax ma siste maa la raw si loo nekk yow Euh, maa ngi beral nag nuyu spécial sunu yaay. sunu yaay waaw sama maman. ko koy euh, maman Aminata. maman Aminata ma nga yëmbaru dëbboon. nuyu spécial maman maa ngi la koy bëggee di la ko may. xam naa li ngay fi amee Pape Ousmane maman léegi man maay numéro un maay taaw bu góor bi eh, eh, eh, ah maman maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa baax a baax taaw bu góor baa nga Atlanta Baba Diop ñu ngi koy nuyuwaale sax bu baax a baax mais suñu euh, maman tamit euh, madame Bolloré et euh, monsieur madame mm. ñu ngi leen di ziar foofu ca Gibraltar ak waa Gibraltar yëpp yi bàyyi xel jamono ji Pape Ousmane waaw namoon nañ la maa leen raw di leen wax encore asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatu asalaamualeykum waaleykum salaam. asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. waaw tey nag euh, dama fay dalal ay euh, daara joo xamante ni macha allah daara joo xamante ni Sénégal yëpp xam na leen. Nadia. Mhm. Babou Nadia nag mi ngi fële ci Sicap Mbao mhm. boo jëlee autoroute à péage bi da nga koy séen immeuble bu vert blanc boobu ñooñ ñooy Babou Nadia. Babou Nadia tey nag ki nga xamante ni la ñu àndal fii mooy Mouhamed Ba. sama mhm. doomu baay bi na nga def. maa ngi lay ziar bapp la jéeri ardama ca nag ya naka yi tey bapp la jéeri naka koor gi ana waa babu naja alhamdulilah euh, ñu ngi ànd ba ñu paree kooku aussi ñu ngi ànd ak suñu beneen waaye ñu naan Aliou Bey ah Aliou Bey waaw Aliou ñu ngi lay ziar ñoo ngi leen di ziar bu baax asalaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu waaw jërëjëf Lalla nag tey ñii laa dalal mhm. waaw te Lalla tey ñu ngi gisee Paa Ousmane kan moo la abalati kay ah, abalati lañ <laughs> wax abalee. mais <laughs> buy dama soo yow. ki lay abal de moom ah. nga kaa sant gërëm sama copain maa ngi lay gërëm de ah, bëggoo ñu wax sa tur. maa ngi lay gërëm di la sant. asalaamu <laughs> aleykum wa waaw ñii nag lan la ci ba tey dans la cour de l'école récréation. maa ngi passé indi woon nga fi lu am solo. waaw naa la est-ce que di leneen. ah niveau bi day gën a yéeg. Ah. day gën a kawe waaw baax na Aïcha bisimilah maa ngi nuyu Dramé Kandji Socé nag Thiaba Dramé. la Médinoise waaw la Médinoise maa ngi koy. buy ñëw may dem congé waaw di nuyu ah, suñu PDG président directeur Sidi Lamine Niass. Mm. di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér-gu-yéen wax leen amiin waay. amiin waaw waaw ku wax. borom bi saawaan baawaan. amiin nangu suñuy weeru koor. amiin defar ñu xéewal. amiin dëggal ma nag suñu technicien bu ñaawul bi Eh. nga xamante ni boo nekk ah balaa nga naan lin rek mu ree <laughs> Aline Ndiaye ñu ngi lay déggee bu eh, eh. waaw Aline Ndiaye day ree si man de bu ma nekk ah balaa ma naan lin man de mosuma gis ba bëñam pour reetaan <laughs> Aline mu ni <laughs> déedéet déedéet déedéet mosuma gis ah ah Aline xanaa yow day bàyyi ba nga nekk ci ah. couloir bi mu xool gauche xool droite gisul kenn mu doog laa si ah, man de maa ngi moom il rit beaucoup ah, Ndella Amar aussi maa ngi koy bégee di bégee ndey kumba Diop di bégee Fatou Ba maa ngi ñëw ci ndog bi sama wàll ci ndog bi maa ngi ñëw léegi nag Aliou Ndiaye du reetaan de. Euh, Lalla. <laughs> damay bàyyi monsieur Aliou Bey. <laughs> Uh-huh. mu nuyoo. Uh-huh. ba mu nuyoo. programme bi mu ma indil macha allah dafa alléchant dafa mm-hmm. rëy. Mm-hmm. dafa bëri doole moo tax bëgguma sax ñuy tardé. Mm-hmm. dama bëgg ñu ñëw rapidement rek man damaa bëgg a xam lan moo tax nga préféré indi franco arabe euh, bi euh, Babou Babou Nadia bi. waaw xam nga dañ weeru koor bi. dañ daan wax dañuy jàng dañuy fo dañuy ree heure yi. ñoom góo ngi fi woon. Mhm. ay Père Touré. xaadim mhm. ñu ngi commencé ay ay ay ajaaraama yow métti ya. Mhm. Euh, yaram yay tàngu. ñii aji kumbata ko def yu ne. mais nag koor gi dañ ni dañuy ñëw ànd ak weer bi. te am na école yoo xamante ni macha allah fii au niveau national Sénégal. ñu ngi def liggéey bu am solo jëmale ko ci xale yi. di leen tàggat ci diine. di def si ñoom diine. parce que nee nañ garab bu dee euh, mu nekk bu si nga ko mën a jubbanti waaye boo demee ba mu màgg waaw boo ko bëggee jubbanti rek mhm. dafay damm ñii nag macha allah secteur yooyu yëpp dañ ci liggéey mhm. moo tax euh, daaw euh, semaine bi passé woowoon naa waa Pikine mhm. bii nag ñoom laa woo ñoom it am na programme yaa ngi woo waa Sicap Mbao Sicap Mbao léegi nag ba tey yaa ci banlieue bi ba léegi maa ngi ci banlieue bi banlieue attaque programme bi ñu indil lan la Aliou gannaaw ba nga nuyoo téléspectateurs yi kon ginnaaw bi ma di gërëm njiitu télé bi muy si Lamine Niass di dalal waa kër gi yëpp daal maa ngi leen di gërëm di leen sant mhm, ak équipe bi nga xam ne ñoom laa àndal ñu bokk liggéey vraiment ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant muy ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo jugee Babou Nadia ak ñi nga xam ne ñooy maître yi vraiment di sonn si xale yi guddeeg bëccëg ñoom laa ànd ak xale yi ñëw nii pour ñu présenter émission bi nga xam ne mooy Njogonal ñu nar fee def itam vraiment lu rëy quoi. Ah, incha allah ah il faut ñu toj fi quoi. Ah, ah. ah il faut ñu toj fi. ah comme ça dinañ wax kon. nee na donc oustaz dañ koy. oustaz déedéet oustaz kon dina wax dañ fiy toj. dañ fiy toj Mohamed <laughs> loolu mu wax loo ci dolli. <laughs> ginnaaw bu ñu sant wa sallam ñu ngi nuy borom kër gi bu baax di koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal yokk wéram ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi liggéey si télé bi yàlla na yàlla leen barkeel leen si liggéey bi tamit di nuy suñu mbokk yi ñi nga xam ne mooy enseignant yi ak enseignante yëpp mm-hmm. sayda ak oustaz yëpp fàttewuñu kenn ak parents d'élèves yi nga xam ne ñoom ñooñu sekk gërëm ñi nga xam ne kii nga xam ne mooy suñu directeur tamit mhm. di koy ñaanal yàlla tamit li nga xam ne moom lay mbébét yàlla na ko yàlla jàppale comme li mu wax rek mhm. mhm. moom lañu indi programme boo xam ne ni insha allah dañ ciy ñëw ànd ak yéen si télé bi toj ko ànd ak delluwaat si li nga xam ne mooy école ba bu soobee yàlla yaakaaroon sans a ah, am lu muy laaj ah. Lalla ak Pa Ousmane. Pa Ousmane ak Lalla instant yi mooy cartonné Sénégal <laughs> euh, nañ commencé. Uh-huh. Aliou. waaw dama bëgg nag ñu dugg ci programme bi. waaw ndax fi mu nekk nii nuyoo nañ. Mm-hmm. kaf nañ. Mm-hmm. foo nañ ree nañ. Mm-hmm. waaye nag léegi jàng bee ci des. comme que ñu ngi ci kuuru école bi moom kuuru école bi. waaw. Ah, rek waaw mu am lu mu fi feeñal mooy xawaas yi xam nga da nga ne tey dañ fiy toj. waaw xawaas <laughs> yi ñëwal. xawaas yi tàcc leen xawaas yi bu baax. ayca ñëwal exil jaaral noonu jaaral ci escalier yi jaaral ci escalier yi voilà. bàyyi ko mu ñëw Hawa si bismillah Hawa. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده بيده الملك وهو كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو عزيز غفور الذي خلق سبع السماوات انتباها ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو قصير ولقد زين الدنيا بمصابه وجعلناها رجوما للصياطين وأعتدنا لهم عذاب الصعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها صحيحا وهي الطفور تكاد تميز من غيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يعطيكم تقدير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم ضلال كبير قالوا لو كنا نسمع أو ناقل ما كنا في أقصاب الصعير فاعترفوا بذنبهم فسقا لأصحاب الصعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم شكرا يا ايه ده تكبير تكبير تكبير macha allah macha allah yaa oustaz kii léegi branché <laughs> ah, na de ah léegi lan la branché na de. waaw bokk na si léegi dama bëgg ñuy commentaire. ñu enchaîner ak deuxième bi. après ñu commentaire. Mhm. beneen comme moom mi doon jàng nii léegi. waaw léegi ñu wool ñu El Hadj Malick Pam. El Hadj Malick Pam El Hadj Malick Pam.

يا أيها النبي لم تقرب ما أقل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تقلة أيمانهم والله مولاكم وهو عليم حكيم وإذا أسر النبي وحده وأورد عن بعض فلما لبأ بي قالت من ألبك هذا قال لبى العليم الحبير إن تتوبا إلى الله لكما وإن تظاهرا عليك فإن الله مولاكم وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير أصابكم إن طلق قلنا يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائقات سيبات أبكارا دياركم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة إلى سداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم ah des na. waaw des na nodd bi ah bismillah allahu akbar allah nekk nii. mais euh, moom mi ngi tudd. Euh, Malick El Hadj Malick Pam. El Hadj moom ñaata at la am. moom moo ngi am fukki at ak ñaar. fukki at ak ñaar bi muy ñëw ca franco arabe ba ñaata at la amoon. boobu moo ngi amoon juróom-ñaari at. juróom-ñaari at. waaw macha allah ngeen euh, lii da ngeen ko ko sol wala da ngeen ko jàngal. non nañ ko tàggat rek. non vraiment enseignants yi ñooy jàmbaar quoi jàngalekat yu góor ak saydaa yi. Mhm. vraiment ak Ousseynou. quoi lépp seen liggéey la quoi. loolu mhm. vraiment ñoo ngi sonn si xale yi suba ak ngoon. est-ce que méttiwul woon avant que muy mën li nga xamante ni moom moo di euh, nodd bi moom moom nañ ne moom mooy naaj bi foofu la. <laughs> waaw non métti woon na trop mais puisque tim jàngale yombul. Mhm. parce que chaque jour. problème yi nga xam ne da koy am diggante parents yi parfois nga dóor seen doom ñu meer lu nekk mhm. te bala ngaa tàggat xale bi pour li nga bëgg mu mel ko il faut mu sonn comme li Pape Ousmane doo wax sànq rek garab ca ba muy tooy lañ koy jubbanti dañ koy jubbanti noonu la demee noo bàyyi ba mu màgg nga yaa koy ah, jëma bu sa garab dana yàqu ba pare doo doo doo si am loo si bëgg quoi voilà ah, ah, donc Pape lu dawal sa yaram léegi nii dama sentir xale bi fu mu jàngee ma ne ah foofu dafa mel ni sama xol bi la ñuy jàmm uh-huh. parce que xale la muy li muy wax amul benn fausse note mm-hmm. jàng bi amul fausse note note bi yëpp octave yi mu yéeg yëpp amul fu mu yéeg nga sentir fausse note mhm. lépp dafa jaar yoon macha allah mhm. kon euh, El Hadj Malick yëkkati sa loxo laaj yow ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax moom sax dafay xaw a nduroog Alioune Ndiaye waaw la war a def suba ah, quoi incha a def suba waaw ngeen ñaanal bu baax quoi nga am résultat bi nga xamante ni moom nga soxla amiin amiin mu nekk tamit sa njiglaay ak képp ku parce que boobaa fierté say euh, enseignant lay doon ak non parents yi dëgg la samay ah, enseignants yi ñooy gën a fier parce que ñoom tout temps bu ñu leen joxee xale dañuy ñaan ñu am ci tamit résultat bu baax ak pourcentage bu baax waaw sant yàlla rek parce que lii rek lañ leen tàggat mhm. te lépp li nga tàggat xale moom lay génnee waa rek wane ko mhm. te lu am solo la def nii mhm. parce que man chaque jour rek man bu demee booy jàng rek wala muy nodd rek man damay fàtte sama bu fan laa nekkati ndax lu am solo lay def nii macha allah te puis sax Pape Ousmane lii dama ko daan gis ci réewu arab yi xëy na ay Arabie Saoudite wala ay Tunisie wala ay Maroc wala ay Égypte. Ah. lañ daan wane xale yi. tonalité voix yi ah, xale yi la ñuy dégg man tey jii dafa mel ni tey kii nii moom euh, El Hadj. Mm. mel ni tey jii. ma ma ngi Arabie Saoudite macha allah macha allah encore ah, waaw fii buñ fàttee soxna Awa Si. jaar na fi. encore itam ñoo gërëm ki nga xam ne mooy monsieur Aline Badara Diop vraiment moom itam moo njëkk a nekk si école bi directeur vraiment waaw Aline Badara Diop jàpp na si école bu baax a baax ñoo ngi gërëm itam suñu yaay maatam ba si mhm. vraiment day jàppale xale yi moom itam guddeeg bëccëg képp kuy xale rek la lay jàppale ñoo ngi gërëm itam présidente parents d'élèves yi muy soxna waaw loolu yëpp day ñëw gërëm quoi léegi dama bëgg ñu enchaîner ko waaw ñu enchaîner li nga xamante ni moom moo ci des mhm. ndax tey bu doon li ngeen indi lépp jàll li ngeen indi lépp laa mu jàll kan moo ci topp ci xale yi macha allah am na solo mhm. lool. di kontaan après euh, euh, Awa ak euh, El maam Kumba Diop la ñu woo. ak ku naan Ndeye Binta Balde. Ndeye Binta Balde maam Kumba Diop ak Ndeye Binta Balde. ay ca leen yaa ñoom tuuti nañ ay xale ah, lañ. ñii ay bébé lañ. soxna si man waaw ñi man nii man ñii nag ñoo may daaneel man ah, sax man yoruma leen sax mais man ñii saa bu ñuy def dara rek man dañ may daaneel dañ may jooyal lu am solo la ñuy def macha allah ak mama Ndeye Maguette Diop ak Ndeye Maguette teel leen micro bi ngeen jàkkaarloog tonton euh, Alioune Badara Ndiaye bu ko defee mu jël leen seeni euh, xarit gis leen seen ay wayjur gis leen seen i ah. ay professeur kontaan ci yéen bismillah la feora Acorde e parte de relógio. Leila fem, Leila tá senta, é você fem. Dona Pato de manhã, de ver, é e de ter. Falha, abandona, abandona, Que adoro, dançando, dançando, dançando. الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف Today's annually come to laugh and Rasul the Lakin. صدق الله العظيم. جاء رسول shukran Aliou Ndiaye daanu na Aliou Ndiaye daanu na Aliou eh, allah man sax ah, ah, ah macha ah, parce que man lu ma lay wax rek. parce que man dama dama toog di yow leen xool. Mhm. ndax euh, ñaari appartement la ñaari école la. mais yàlla def na ñii nga xam ne ñoo leen tàggat tamit. Mhm. ñoom sonn ñu taayuñu te chaque jour rek li la ñu wane te buñ bu mu ko gisee. alhamdulilah laay wax chaque jour damay kontaan rek. ñoom CI la ñu def quoi. ñoom ñaar CI la ñu def. si français ak arabe yëpp. Mhm. comme ñun franco arabe la ñu yor mhm. xale nañ leen di tàggate si côté arabe mhm. noonu lañ leen di tàggate si côté français mhm. ni ñuy jàngee programme général enseignement général loolu la ñuy jàngale côté français bi en même temps la ñuy jàngale c'est reconnu par l'état par l'état oui tey Saliou dama dama dama dama dama euh, kii bi arabe léegi état bi sax ñoo leen jox programme waaw léegi programme bi ñuy jàngale comme suba soo xoolee su am nañ élèves yoo xam ne dañu def certificat français option français am na ñoo xam dañuy def option franco arabe kum neex léegi yaay tànn sa bu la neex soo amee option français franco arabe soo génnee état léegi na ay public yoo xam ne mën nañ fa yóbbu seen doom yi ñu eggale seen jàng te sax koo koo am doole koo mu doole yëpp sa doom léegi mën na continuer jàng am diplôme d'état léegi vraiment ñoom coono bi ñu doon am daal léegi jeex na njàqare bi parents yi doon am vraiment léegi dañ na quoi waaw léegi daal ki am option ki def option franco arabe ak ki def option français kese vraiment ñoo yem léegi Sénégal. d'accord waaw dégg bénéfice bi sax mooy ki am option franco arabe. parce que ku am a dem ci àdduna bi da ngay da ngay gis sa bopp. waaw Saliou jigéen léegi macha allah mm. dañuy ñaan yàlla rek def leen ay mag yoo xamante ni dañ leen bàyyi xel ci kàddu goo xamante ne dañ koy yëkkati mm. pour mu jëm ci euh, population bi mm. moo di liñ fi def nii ci day tari euh, arab mm-hmm. kii di ko traduire en français mm-hmm. euh, dialogue boobu mm-hmm. nan ngeen leen ngeen leen ko mën a jàngalee tey ji bañ ñëw taxaw di ko ñoom li ñuy wax xam nañ ko xam nañ traduction bi en wolof foofu li téere bi di wax li expliqué moo leen moo wax la leeral bu gën a gàtt lii amul luñ si préparé wala di coono kër di kër tey fu ñu woo su ñu woon feneen mun nañ dem yóbbu présenté lu raw lii sax. allah waaw ñun amuñ côté boobu lu ñuy tiit. nan ngeen côté boobu dañu siy liggéey bu baax parce que seen seen maîtresse yi seen maître ñoom ñoo siy liggéey. ñoom vraiment dañ duñ tàyyi comme moo xam ne ni nga wax duñ tàyyi duñ sonn di liggéey si xale yi. Hmm. moo tax résultat bi feeñ résultat bi li tax mu feeñ seen seydaay la ak seen maîtresse yi. vraiment ñoo liggéey leen bu baax a baax a baax. est-ce na pour ñoom ñu comprendre ñu comprendre dialogue bi. waaw métti woon na benn côté mais méttiwul benn côté. Mm-hmm. parce que tàmm nañ ko parce que préscolaire li ñuy jugee ñoom. Mm-hmm. yéeg parce que suñu école dafa am préscolaire. Mm-hmm. préscolaire boobu dañ leen di tàggatee. ba tàmm nañ lu bëri maîtriser nañ lu bëri ñu doog leen yéegal suñ demee séy yi fekk ñoom vraiment lépp nooy na ñëpp continuer. d'accord macha am na solo yaakaar naa ni ba léegi. Euh, Saliou Aliou. dañuy dañuy dañuy dañuy xuus rek ci programme parce que dara du des. waaw li ngeen a ñëw. léegi war a ñëw mooy euh, dañu woo élève bi nga xam ne mooy Gaye Sène. Gaye mu jàngal ñu ayatul kursi. ah ayatul kursi Gaye Sène. moom préscolaire la nekk quoi grande section la nekk. <laughs> Gaye Sène grande section na moom préscolaire la nekk ah. ñaata at la am. moom juróomi at xaaral.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 baatin bi ne ci biir. te li nga xam ne xamoo si te moom moo nekk bu gën a màgg si alxuraan. Mm-hmm. muy mm-hmm. li lu béy wax léegi rek Aliou Bey mm-hmm. li nga xam ne xale bi juróomi at la am moom def lii mokkal alxu aaya bu gën a alxuraan muy soot ayatul kursi te li nga xam ne ak li nga xam ne moom la lay aar nu mhm. mu bëree kenn xamul mu toll tabaarakallaahu waaw booy tëdd moom ngay musloo mhm. waaw tabaarakallaahu ay waaw gis nga moom moom moo nekk noonu li ma siy doole rek mooy gën a jaajëfal ñii liggéey liggéey bii quoi. waaw Seydaa ñoom ñëpp vraiment di leen gën a di leen jaajëfal bu baax. Uh-huh. di gërëm benn waay bu ñu naan Assane. Uh-huh. moom mooy maire maire Mbowor. vraiment uh-huh. Assane ñoo Assane Seck. ñoo ngi koy gërëm bu baax di ko sant. mi ngi ciy jàpp bu baax waaw moo ngi baax. vraiment waaw benn question laa la bëggoon laaj. est-ce que yéen école leen di jàppale état waa benn côté vraiment gisaguñ autorité yi nga xam ne ñoom ñoo nekk suñu wet di ñu jàppale ñun ñoo demee suñu moyen nu bopp di dem mhm. mais vraiment soxla nañ ay ndimbal soxla nañ ay table ban soxla nañ ndimbal yu bëree bëri mhm. parce que vraiment ñun zone bi ñu nekk ay néew di doole ñoo fa nekk mhm. parce que banlieue lañ nekk te banlieue vraiment parents yi fa nekk seen loxo jotu seen digg ginnaaw te état moo si war a jàpp eh, su si jàppee waaw mais nag comme boo déggee mu lay wax loolu rek suñu nee Sika Mbaaw eh, eh. ñun ñoo ngi nekk diggante Sika Mbaaw ak Sam Sam te li jaar foofu lañ nekk te élèves yu bëri yu nekk suñu école ñoo ngi nekk sam-sam 3 lañ nekk fa la ñu bàyyeekoo di ñëw te seen doole demeewul noonu ñu bëri su nawetee même dañuy am ay jafe-jafe moo daal waaw mhm. <laughs> mais nag am nañ yaakaar su maire bu bees bi nga xam ne moo fi nekk léegi ah, muy Coumba Ndofène am nañ yaakaar mu jàpp si dañ tam ah, ñoo ngi koy tàllal loxo bu baax waaw ñoo bu baax pour mu jàppale jàppale mboolem école yi nga xam ne ñoom ñoo nekk zone jàmm gën si kaa mbaaw euh, mhm. gën a xuus si programme bi tey nee naa la bëgguma dara des fi mm. kan la ñuy woo. ñooy woo Fallou quoi. sëñ Fallou ana mu Fallou ñaa la ñu woo quoi Fallou ñaa tàcc nañ Fallou bu baax a baax. jërëjëf sëñ Fallou. moom it xale la de. waaw moom dem préscolaire la ne quoi. Uh-huh. Fallou 6 mm-hmm. ans la am. juróom benni at waaw. ay ca Fallou. ay ca taxawal say wax rek say mbokk ñëpp dégg ay ca bismillah euh, si sama ko centre nag. waxal ci oh, sama xol laa sentir nakar ak tiis si damul sang bi sang bi dem na dëgg réer na alxuraan bi man ka xaaj daf ko ay pàcc pàcc déedéet sang bi dem na waaye bàyyi na fi ñaar alxuraanu karim wa qadiitu nabur ya sarif alxuraan bi ku ci def lu dafuwul maa nga wokk ko ci ngir ko ci sans ndax yàllaa ngi àdduna ñun ñoo wàccee alquran te ñun ñoo koy sàmm waxu yonent bi moo ñu reeralal lépp lu ñu leen ci alquran matul xaq du fay ndax yonent bi mu ngi wax naa al ulamaa warasatul anbiya sëriñ yi borom xam-xam yi ñoo ndonal yonent yi ci kaw suuf alhamdulillah kon man ndaw naa màgg ci daaratul islamiya ana ñu doon wax naa dawul محمدا إذا مات إنهنا اسمه لا وكلا ñaata muhammad ñoo nekk fii xaada zama yow yàlla maa lay ñaan nga boole mag yonent bi ci kawsara nga dëkkal mag moom ci jannatul firdaws ak mbooleet ummal islam amin sadaqallahu amin allah sàcc nañ ko bu baax a baax a baax masha allah doon tojal bi si lan wax ci téere bi vraiment mooy wax ni. Uh-huh. jàppoon nañ ne alxuraan képp ku koy caaxaane. Mm-hmm. yaa ngi caaxaane loo xamul. Mm-hmm. Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi mu fi jógee dim nit ñi dañuy jàpp ni diini ji fa lay yam. Mm-hmm. te bi comme ni mu ko waxee Muhammad yu dul jeex. ñoo si kaw suuf. sa al ulama warasatul anbiya sa borom xam-xam yi. ñoom ñoo doon yonente bi. kon vraiment de borom xam-xam kenn xamul nuñ toll. si noon rek ñuy jaar di nuyoo. suñu papa suñu kilifa. mooy Hady Hady Niass. Hady Niass vraiment ñu ngi koy déglu tafsiram ñoo ngi koy topp. ak ñoom ñëpp ñi xam ne ñoom vraiment ñoo ngi jàpp diine bi mhm. jàpp bi bi nga xam ne war na si mhm. ñoo ngi leen di gërëm di leen sant mhm. di ñaan yàlla di vraiment kaay lañ te ñun xale ñuy tàggat ñaan nañ yàlla bis jot am relève bi ñëw remplacer leen incha allah lépp ñoo ngi koy ñaan mooy li nga wax rek dafa nekk loo xamante ni luy continuer la war a doon comme que nee nañ état c'est une continuité donc euh, diine ji tamit même chose comme que Seydina Mouhamed sang-sang yi sallallahu alayhi wa fi jógee dañoo yaakaar Euh, diine ji fa la yem tey comme ni nga ko waxee am na yeneen Seydina Mouhamed yoo xamante ni waaw ñu ngi ñu ngi ñu ngi fi woon te ba tey sax mosuñu fee jógee allah euh, keroog am na ñoo inscrire inscrire nga caba day dem préscolaire ak kan ak ak sama maman awa nga waxoon ah déedéet awa du dem de ah, euh, caba la béti ah ak sukaar ak sukaar waaw ñooñu la ah, sukaar dama <laughs> kaw loolu lay ragal mu dem foofu ree ree ree foofu ba ba waa arab ba sax boo metul dañuy daw macha allah oustaz Aliou encore tàccu leen ma waaw ñu ngi fi nekk nag ci dans la cour de l' école récréation ak école boobee ñuy wax Babou Nadia école bi nu mu tudd école bi nu mu tudd kabir kabir takbir takbir macha allah macha allah kontaan naa lool eh, ban moo léegi war nañ dugal ku ñu naan buso buso ak sàmb am na lu waral benn dialogue la benn dialogue bu ñu war a def mhm. après am na tim benn élève bu ñu sàmb dañ ñëwaale mhm. am na benn élève bu ñu naan baaba sàmb am na benn tafsir bu gàtt bu tafsir mhm. pour may ko xale yi may ko tim si weeru koor may ko suñu papa yi. suñu nijaay yi ah. waaw moo ngoy def. ah man day tafsir. Ah. xale yi ñoo leen commencé formé si tafsir. Ah. waaw kon kon kooku moo mujjee. waaw kooku mooy borom tafsir bi. mooy borom tafsir bi tegal siis <laughs> mu toog comme oustaz. Aïcha jox leen micro bi. Pa Ousmane génn nga def organiser leen tuuti yow ci biir Pa Ousmane voilà ay xale lañ.